Malick euh, Diop maa ngi lay nuyu. waaw Ndeye Comba maa ngi lay fay. Malick Diop nga nekk euh, secretaire euh, national du mouvement dooleel euh, transport récemment ngeen organiser woon ay manifestation pour euh, demander démission El Malick Ndiaye lu ko waral exactement da ngeen a kontaanul si liggéeyam wala lan la. waaw manifestation yi li ko waral mooy jafe-jafe yi nga xam ni moom la secteur transport di dund. boobu ba léegi depuis euh, nouveau régime bi ñëw en place daje ñoom ay yoonu yoon pour wax leen ñu jël ay mesures ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la transport di dund mais en notre grande surprise dañuy gis ni euh, ki nga xam ni moom lañu yàlla booleel muy El Malick mu nekk suñu ministre du taxawaay bi mu war a am pour fexee ñun ñi nga xam ne ñooy acteur transport ñu gis suñu bopp si suñu liggéey taxawaay boobu dafa des bu baax a baax ci loolu nag ci la mouvement dooleel transport ànd seeg ay kuréel yu bari daal di gis ni ñi nga xam dañuy def transport irrégulier ak concurrence déloyale ñu jël leen porte leen plainte yóbbu leen ci yoon keroog nag bi ñuy amal audience bi mu dëppoog le 23 octobre mbooloo mu bari ci acteur transport dañu fa teew bi ñu génnee dégg ni dañoo renvoyé audience bi ba le 8 janvier ci le mbooloo mi doon yooxoo di demander la démission de El Malick Ndiaye hmm. ndax affaire bi ni mu demee daf leen a naqari dañ jàpp ni jafe-jafe yi ñu am yépp ñàkk compétence ak ñàkk gis-gisam bu leer si wàllu transport moo ñu ko indil moo tax nag mbooloo mi bi ñu génnee à l'unanimité ñoo doon réclamer la démission de El Malick ndax jafe-jafe yi nga xam ne transport mi ngi koy dund. te ñu amoon yaakaar bu baax a baax ne ñoom bu ñu ñëwee dinañ si indi ay solution te boobaak léegi dafa mel ni jafe-jafe yi dafa gën a tar eh, loolu la loolu lañ tën waaw yéen porté woon ngeen euh, plainte contre euh, plateforme yi nga xam ni ñoo yëngatu ci wàllum transport te ngeen jàpp ni dañuy def li ñuy wax concurrence déloyale euh, est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun ci dossier judiciaire le fu ngeen si toll waaw parce que ñun li ñu gisoon mooy dañu dajeek autorités yi nga xam ne ñoom la ñu dénk réew mi waxtaan ak ñoom si problème bi nga xam ne mooy problème bi gën a sérieux si transport au Sénégal muy ñi nga xam ne dañuy def transport irrégulier déloyal à travers ces multinationales bi ñu gisee ne nag autorités yi la ñu war def defuñu ko te transport dafa am ay loi ak ay réglement yoo xam ne moo ko tënk ñun si lañ gis ni kat kon nañu dem si yoon fa mbaxane doonee benn ñu àtte ñu ak ñi nga xam ne ñooy def transport irrégulier ak concurrence déloyale ngi leen porté woon plainte nag mois de juin suñu première audience mi ngi amoon le 24 juillet ñu renvoyé ko le 9 octobre renvoyé waat ko le 23 octobre ba tey jii ñu ñu amoon yaakaar dañ ko àtte le 23 octobre ñu renvoyé ko ba le 8 janvier tey ñu es yaakaar ni euh, justice dina wax yoon pour activité yi nga xam ne moom la multinationale yi def ànd ak euh, yenn certains particuliers sénégalais ak corporation yenn sénégalais yi justice dina def wax droit bu ko defee ñoom ñu arrêté li ñuy def ndax li ñuy def ñi ngi sonal transport ñi ngi sonal ñi nga xam ne dañuy yëngu si wàllu transport. d'accord loolu moo waral tey justice bi. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu saisir justice pour que la justice puisse dire le droit pour que une fois pour toutes ñu autorités jël décision yi ñu war a jël. pour ñooñu mën a àttee li nga xam yàq-yàq yi nga xam ñu ngi koy def ci transport au Sénégal. d'accord euh, tey jii amal nañu li ñuy wax état généraux des transports est-ce que yeen euh, daje boobule euh, boole woon nañ leen si te aussi lan ngeen fa tënkee lan ngeen ci déggoo ak euh, gouvernement bi exactement ci yaatal. waaw ndaje boobu boole woon nañ si en tant que regroupement des taxis urbains Sénégal teew nañu fa bañ fa teewee nag waxtaane nañ fa lu ëpp juróom fukki point ak lu topp lu jëm si wàllu transport terrestre mais dafa am ay point focal yoo xam ne tey amuñu si accord lu si mel ni système mu VTC euh, acteurs yi wax nañ carrément ne ànduñu si système mu VTC avec des particuliers waxtaane nañ fa tam lu si jëm si permis à point acteurs yi ànduñu si parce que jumtuwaay yi mu war a àndal tant que matalewuñu ko ñun mënuñoo ànd si permis à point waxtaane nañ tam si lu jëm si wàllu agrément yi parce que tey bu euh, état bi waxee ni pour nga am agrément il faut nga am lu mat cinq oto loolu mooy indil jafe-jafe ñi nga xam ne mooy acteur transport parce que xëyee xëy amandoo cinq oto yuy daw loolu tam dañuy wax ni nañ ko seetaat parce que mënuñu si ànd waxtaane nañ yeneen point waaw yoo xam ne yëpp juróom-ñaari point yoo xam ne mën naa wax ni trouvé wuñu si point d'accord ndax gis nañ ni yooyu bu ko teelee teg askan mooy lu jëm si wàllu vétusté parc bi mm-hmm. ñu wax ne oto bu am lu ëpp ñaar fukki at dooto def transport public de voyageurs te ñu xam ne à quatre-vingt-dix-neuf pour bi nga xam ne mooy daw oto yi repasse nañ plus de vingt dafa war a am un programme bien défini avant ñu jël yooyu mesure loolu nag mooy suñu njàqare jëm si wàllu états généraux yooyu yi nga xam ne mooy amal léegi nag bal bi mi ngi si camp président de la république gannaaw ba ñu marqué suñu désaccord moom mi nga xam ne moo jiite réew mi Euh, di décliner la politique de la nation moom moo war a xoolaat mbir mi waxtaan ak son chef du gouvernement waxtaan ak la le ministre El Malick Ndiaye ñu xool naka la ñuy fexee ba organiser transport te duñu gaañ acteurs yi nga xam ne ñoo fi jotoon a nekk di liggéey boobaak léegi kon nag euh, états généraux yi daal def nañ si liñ si def wax nañ li ñu war a wax tey le président de la république bal bi si kanam la nekk pour mu xool yan mesure la war a jël ngir fexe transport bi ñi siy liggéey mu si gis seen bopp ñu askanu Sénégal tam mën see gis seen bopp. Mhm. Euh, tey ji aussi euh, leneen lu am solo moom mooy yéen da ngeen am seen list pour élection législative anticipée yu 17 novembre 2024 est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun ci list yooyu le ak euh, lan moo waxal ngeen bokk ci élection législative yi bëgg a am ay député ci assemblée nationale. waaw liste yi li tax ñu taxawal ko. ñun kenn umpalewul ni mouvement dooleel transport dafa jàppale woon la coalition Diomaye président 2024 ci présidentielle yi ñëw apporter suñu soutien financier ak lépp li ñu war a def pour Diomaye mën a am ndam ci élection présidentielle yi gannaaw nag ba ñu apporter solution ba yàlla defal ko mu am ndam dañu commencé am déception ndax ñun li ñu ñor mooy lu jëmale suñu secteur ci kanam mais ñu gis ni kat nguur gi euh, fi mu taxaw mooy delloo secteur bi ginnaaw moo tax na ñun ñi nga xam ne ay acteurs lañ muy mouvement dooleel transport nga xam dafa jàppale woon la coalition Diomaye président 2024 ñu créé suñu liste ànd si ak waa chambre de métier bi nga xam ne le président Issa Dieye moo ko jite ànd si ak les mareyeurs ànd si ak les artisans ak les cultivateurs ak ñun ñi nga xam ne acteurs du transport lañ defar benn liste buñu ñu tuddee ànd dooleel liggéeykat yi ngir sàmm suñu yelleef hmm. liste boobu nag lañ taxawal ngir fexe teew assemblée nationale mën fa def ay proposition de mën fa wax jafe-jafe yi nga xam ne moom la artisan yi dund moom la cultivateur yi dund moom la acteuru transport yi dund ngir nguur gi mën see jël matuwaay yi mu war a jël ngir liggéeykat gi mën a gis seen bopp si réew mi loolu moo waral ñu defar list tudd ko ànd doole liggéeykat yi mhm. si njiitalu président Issa Dieye ànd si ak le président Modou Seck ak les mareyeurs ak ñoom ñëpp ñi nga xam ne ay artisan lañ Mhm. pour ñu am majorité ci assemblée nationale bii ñu jëmal. d'accord euh, tey ji aussi Malick ñu laaj la ci fitna bi nga xam ne am na ci campagne électorale bi gis nga li jot xew ci diggante euh, ñi ànd ak euh, Barthélémy Dias ak ñi ànd ak Abbas Fall mais aussi lakk gi ñu lakk këru Khalifa Ababacar Sall nekk leaderu coalition taxawu Sénégal fitna boobu dal di jóg déjà naka nga ko gisee te campagne bi mu ngi door a tàmbali. waaw fitna googu dañ koy ñaawlu ndax euh, defe naa campagne électorale dafa war a nekk campagne bu civilisée boo xam ne dañ fiy amal ay débat d'idées boo ko defee sénégalais yi mën a tànn ñan la ñu bëgg ñu teewal leen sa pencum ndaw réew mi mais euh, violence côté bu mu mënti jógee ñun dañ koy condamné dañ koy ñaawlu ndax fitna baaxul yee fitna baaxul tey defe naa nguur gi ak le ministre de l'intérieur ministre des forces armées jël war nañu jël matuwaay yi ñu war a jël ba képp koo xam ne dangay indi fitna ci campagne électorale bi ñu teg la daan ya sa war ndax lu ñuy ñaawlu la jàpp nañ ni warul nekk campagne boo xam ne dañ ko war a tàmbali si ay fitna di si gaañante wala di tojante yu bopp mais dañu war a xalaat yi ñu génne ko ba kenn ku nekk xam yow lan nga fas yéene taxawee bis buñ la dénkee yóbboo ci pencum ndaw dañ ban taxawaay nga fas yéene am kon dañ koy ñaawlu bu baax a baax di ñaan ñi nga xam ne ñooy force na l'ordre et de sécurité nga xam ne ñooy kilifa yi ñu jël matuwaay yi ñu war jël ba nga xam ne lu mel noonu dootu fi am d'accord euh, fi ñuy euh, peut-être jeexale mooy affaire Bougane Gueye Dany naka nga ko gisee ñu war ko juger ci 30 octobre euh, bile nekk nga gisee mbir mi ban kàddu nga si mën a sànni ci mbirum Bougane Gueye Dany waaw position mouvement dans le transport dafa dafa leer si si kanam boobu mooy Bougane Gueye Dany citoyen la comme bépp citoyen sénégalais tey bu fekkee dafa am réew moo gox boo xam dafa am ay jafe-jafe tey muy citoyen nekk acteurs politiques dem di apporter le soutien ñooñu nga xam dañ nekk si ay jafe-jafe waruñu ko téye si loolu loolu nag ñun dañ koy ñaawlu bëgg ñu bàyyiwaat ko mu delluwaat si njabootam delluwaat si ay militam parce que c'est un boo xam ne dafa bokk si élection législative yi nekk un acteur de développement vraiment loolu tey ñun ñëpp koy ñaawlu jàpp nañ ni fii réew mu toll nit ki dañ leen war a bàyyi ñu képp ku nekk fa nga bëgg a dem nga dem fa en toute sécurité en toute liberté waaye di la jéem a collé la indil ay jafe-jafe ndax dañu bokk ay position loolu defe naa ni dañ ko war a reesu si réew mi kon nag mouvement dooleel transport mi ngi apporter tout leur soutien à Bougane Gueye ci si jafe-jafe bi nga xam ne ñi ngi ko koy teg te ñi ngi ñaan yaa am nañ yaakaar bu baax ne suñu justice réew danañ ko bàyyi mu delluwaat sa njabootam delluwaat gisanteeg ay militam ngir continuer euh, liggéeyam voilà euh, beneen question moom mooy rek euh, tere gi nga xam ne ñu ngi koy tere manifestation yi euh, ci régime u Diomaye déjà yéen bokk ngeen si ñi nga xam ni yéen a njëkk euh, teg euh, benn demande d'autorisation de manifestation pacifique ñu tere leen ko naka nga ko gisee Malick ngoom loo si mën a wax parce que tere yooyu la mi ngi wéy di continuer ba léegi. tere yooyu ñun dañ koy ñaawlu ñun yaakaaroon nañ ni avec l'arrivée du président Diomaye Faye ak son premier ministre Ousmane Sonko tere ay manifestation dafa war a nekk lu exceptionnel cas exceptionnel la ñu waroon nekk di tere ay manifestation parce que ñun boobaak léegi lu mat ñeenti manifestation yoo xam ne dugal nañ ko dañ ko tere am na yoo xam sax dañu ñëw jàpp suñu nga xam ne dañu ñëwoon taxaw rassemblement buntu si benn télévision pour defa déclaration ñu ñëw jàpp si ñun ñu bëree bëree bëri di ñu tiir ay lacrymogène loolu dafa ñaawlu te jàppaat nañ ni bu ñu ñëwee loolu moom feneen lay jóge lañ ko xalaatu mais xalaatuñu ko woon si ñoom kon dañ koy ñaawlu bu baax a baax parce que gis nga manifestation c'est un droit constitutionnel tey képp askan wi koo xam da nga am loon naqari war nañ la bàyyi nga ñëw taxaw jooytu ko fa nga ko war a jooytoo li ñu soxla si ñoom mooy ñëw encadrer manifestation bi nit ñi mën a mën a manifester si sécurité ak jàmm dem delluwaat seen njaboot parce que boo leen ko teree si nii rek dinañ ko def si beneen anam boo xam ne boo moytuwul du gën si réew mi. Hmm. loolu nag ñu ngi si lancer appel président de la république mu xam ni réew mii ñu toll. pays démocratie la manifestation droit constitutionnel la tere ko dafa war a nekk lu exceptionnel kon dañ koy ñaan vraiment ñu jël matuwaay yi ñu war a jël muy force de l'ordre et de sécurité képp ko bëgg a am loo naqari bëgg koo joyal nañu ñëw encadré la nga def ko ci jàmm ak salaam dellu ñëpp xam ni yow mi da nga am cri de booy lancé bu ko defee yëpp mën a delluwaat ci jàmm. voilà merci beaucoup Malick euh, Diop maa ngi lay remercier bu baax a baax Malick. jërëjëf Ndeye Comba maa ngi lay remercier di remercier auditeurs yi nga xam ni ñoo nekk Rewmi TV yëpp ak Rewmi FM. voilà di rafetlu seen liggéey bu baax a baax. Mhm. jërëjëf Malick maa ngi fàttali ni yow yaay euh, secrétaire euh, national du mouvement doole transport Malick Diop jërëjëf. jërëjëf.